ok man maa ngi tudd Saliou Wade ma nekk coordinateur bu Thiès Est. Hmm. parti démocratique sénégalais fii ci Thiès. Hmm. lan moo la dal ci marché démb bi. lan moo ma dal ci marché démb bi mooy dama dikk daal gaare sama oto ci rue de bi de loin. Hmm. après na ma door a dox dikk ci marché bi bi ma dikkee ba boori rajo ñu sànni lakkarmo yi après man ma dox ne naa delluwaat sama oto pour déplacer ko bi ma dikkee ba jub oto bi ma taxaw rek lakkar lakkarmo seen yi naaw continuer jéggi mbooloo mi fekk suñu ci fi ñu maanaam fekk si biir ci biir garage bi ma gaaree woon ci buntu garage bi. après lacrymogène yi dugg ci biir garage bi benn bi plongé dugg ci sama biir pare oto dugg ci biir oto bi ci biir oto bi la explosé daal di lakk coussin yi mais man man pour man ñun ñooy marché mais pas oto yi ñooy marché bu ñuy visé war nañu visé ci nit ñi mais war ñëwun visé biir garage yi ak nit ñi nga xam ne dañoo indi seen oto taxaw ci àll ba yegg wuñu sax ci biir marché bi ñi ñu fekk seen oto fi ñu nekk ñu leen di lakk am na oto ñoo xamante ne bi marché bi sax leen a jóg man du taw responsabilité bi bi moo ma taxoon a jóg vraiment loolu la dina man daal loolu laa gis lakk nañ sama oto toj sama pare-brise yàq nañ sama matériel daal ci condition yoo xam ne bi yoonu oto bi nekku ci man maa ngi doon dox man di dox samay marche ak di lijjanti sama beneen problème bu dul problème wu calculé wu ma daal ni seen danañ ko dugal ci biir oto parce que bu ñu fekkoon ay nit dañ leen di rey. léegi nooy def. ah léegi nu may def bi ci njëkk mooy dinaa porter plainte parce que du ko bàyyi noonu mu dem bi ci nepp dinaa ànd sama parti lépp lu ma ci droit jox dinaa ko jël incha allah.